mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi de la témoin le quotidien les échos source à las vox ñu xëy di xibaar naan ñu directeur de l' administration nga xam ne Ousmane Sonko jamono ji l' administration pénitentiaire moo ko bind waa ministère de la justice dafa daal di fiyute maanaam dafa génn ci mbedd mi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 na ne jamono ji Ousmane Sonko am na ko ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramam moo tax lettre boobee daal di fuité maanaam est-ce que du état bu Sénégal ñoom ñoo fexe ba askan ji xam ne moo jëm ci lettre bi directeur de l'administration bind ministre de la justice ndax moom lu jëm ci wàllu wér yaram Ousmane Sonko bi nga xam ne dañu ko daal di fësal ci mbedd mi loolee violé ay droit candidat Ousmane Sonko la ba pare moom procureur bi nee na lu garaaw la Juan Branco ci biir journal bi xëy duñu xibaar mbir mu Sonko jafe ko ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram Juan Branco di avocat Ousmane Sonko nee na fukki la ñu génn Ousmane Sonko jege bi di Vox Populi nee na Ousmane bu catastrophique jamono ji ci la nekk moom Juan Branco ne am na loo xam ne maanaam askan wi dañu ko war a xam maanaam dëgg kay ne Ousmane Sonko ay jéegóor yu tuuti moo ko dese woon Ousmane Sonko génn àdduna ndax wàllum wér gi yaram moom sooxe na ba jéggi dayoo réew mi quotidien ñu xëy fekk ko fa moom Juan Branco nee na jamono ji Ousmane Sonko ak dunda ma ngi ci xottu gerte Ousmane Sonko ma ngi ci diggante dund ak dee maara day taali maara day taali yéene yor yora ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na jamono ji jot na sëkk ngir nag njiit réew mi di président Macky Sall daal di ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye libéré ñi nga xam ne ñooy détenu politique yi yéene kaay gi de la sëxëy génn ñu Ndakaaru yóbbu ñu diwaanu Touba nee sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru jamono ji tëjal na ay buntam ñi nga xam ne ñooy way politique yi sëriñ Muntaxa nee ci mission la nekk 2024 journal bi nee ñi nga xam ne ñoo dëkk Tuuba dinañu voté yéen kaay gi nee sëriñ Muntaxa dañu ko wax na ko jamono ji 2024 daan nay jàmp jamono ji bu ñu fi bëggee waxee ne Tuuba du ñu fi bala ñu koy lijjanti mbir mi xaju fi te mën naa andi ay gàllankoor yi ki jafe-jafe moo tax sëriñ Muntaxa bàyyi 2024 bi ñu voté Tuuba waaye bu élection ji daan ci ñi nga xam ne ñooy politique yi ñu daal di koy noppal may ko jàmm ndax jamono ji dafa nekk ci liggéey yéen kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu wax que le maire gagné kaay gi de Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Amadou Ba mooy candidat benn bokk yaakaar boo xam ne jamono ji ma ngi ci sous pression pression bu mat sëkk jamono ji ci la Amadou Ba nekk ndax jamono ji nguur gi ñëpp ràññee nañu ne seetlu nañ timit ne dañoo tële ci lu jëm ci wàllum dund gi nga xam ne jamono ji metti na cher na loolee nguur gi def ci na ci li tax journal bi du Sud Quotidien wax ne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 Pape Serigne Niang mi moo notifié woon Ousmane Sonko ci lu jëm ci génne nañu ko ci liste électorale yi maanaam le témoin li mu bëgg a wax nee na sous bu Almadi bi nga xam ne moo génn àdduna di Pape Serigne Niang moo bindoon Ousmane Sonko xamal ko na ko liste électorale yi yow génn nga ci yéenekaay gi de la point xëy dellu si ci parcours Ismaïla Madior Fall di ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères journal bi tamit dikk na ci jéego yi nga xam ne Ismaïla Madior na ko teg ci boobale xam-xam la xam ne kenn du ko laam-laamee ci lu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 si yéene porte plainte chroniqueur bii di Siré Sy ndax nee na Siré daf ko fenal daf ko wax dul dëgg diffamation yéen gi di verdict news xëy xam ne ñoo ngi koy wax di si tudd Diagne Ndiaye ak Isabelle Adjani journal bi dikk na ci ak ñaari près deux millions na ci dikk ak dëgg gi fan la duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale mi njàng mu kawe mi di SAES syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci njàng mu ñoom jamono ji ñoo ngi sàkku sàkku université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu daal koy ubbi ñoo ngi woote mobilisation bu rëy yéeni kay di révélation xëy di ñu xibaar naan ñu bëri na ay lycée ci Sénégal étudiants yi ñoo leen génne ndax étudiants yi li ñu wax ñoom bu ñu jàngul jàng du am ci réew mi yéeni kay di évidence xëy di ñu xibaar naan ñu port autonome de Dakar ba jamono ji ma nga yokko jamono ji sax ci ab grève total ba muy tuule sa lañu jëm ñi nga xam ne ñooy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 bëri na ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan bëri na ci ay xale yu jigéen yoo xam ne faatu nañu ca yéene kaay gi de Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa El Malick Ndiaye daan nay wax ne ndaw ñi jamono ji dañoo war a toog ci réew mi xeex ngir nag fal Ousmane Sonko ci bopp réewum Sénégal ngir mu mën a saafara jafe-jafe réew mi yéene kaay gi L'As xëy ñu xibaar naan ñi nga xam ne ñoo yëngutu ci lu jëm ci wàllum yarum li ko waral bokk na ci ginaar yi jóge bitim réew di dugg ci réew mi journal bi ne ne ginaar yooyu sax wóorul ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram yéene kaay gi na li ko waral bokk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 mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi Jotali